ñoom duñ ko foote mais ku bëgg Sénégal am yërmande Sénégalais yi nga xam ne post bi ñoom kii post bi ACC bi kii jiite. Aminata ngi Ndiaye jiite. nga xam te budget bi mu ngi coûté Sénégalais yi plus de soixante soixante seize milliards. nga xamoon tey tey boo demoon euh, dëkk bi ñu bi ñu na. soixante jox na village bu gën a reculé. ba fa demoon tey amul école amul hôpitaux mm-hmm. amul ay yoon yu baax tey dama yaakaar ni ku bëgg Sénégal ku bëgg Sénégal war ngaa mën na taxaw jomm ngay man dama voté bi loi gis nga président li gën a simple li gën a yomb dafa am collee donc mais na jël dëggee tas ko pal dëggee moo gën a gaaw dëggee dëggee dëggee moo leen nommé mm-hmm. na leen tas naka tas pal dëggee moo gën a simple mën na koo tas par degré moo moo gën a simple moo gën a oyof man loolu laa demande président. solennellement gis nga gis nga cette assemblée bi nga gis nii. Mhm. nga xam ne jeexal noonu dañuy tàggatoo parce que ku jeexal kii tàggatoo li muy def alofa la xam loolu tax benn benn sànni tàccu kese moo intéressé benn pas pas pas lu ñàkk voté kii bi démb de. ñoom seen mbëbët lépp seen waxtaan ba bay déggu seen discours mi député yi ak waa euh, benn bokk yaakaar benn tas yaakaar fi nekkoon seen seen benn san tàccu may na na PM le président Ousmane Sonko ñëw assemblée saa ko te loolu bu ko am nga cette assemblée la damay demande président Bassirou Diomaye Diakhar Faye solennellement naka tas parce que ñii jeexal nañu gis nga kenn du xeexal sa peuple sa xam nga Macky dafa toñ Sénégal ba sa kanam yàlla Macky Sall ma ay lance ko mandat d'arrêt international mais Macky am na kersa kersa boo ko am na kersa ñëwaat Sénégal parce que dëkk boo xamante ne nga nekk xam nga xam nga tey dëkk boo xamante ne dama ne Macky Sall waxuma ne lance ko mandat d'arrêt international mais Macky Sall am na kersa ñëwaat tegaat sàngam Sénégal. mais parce que gis nga. dinañu ci ñëw ci ci débat bi. non cest euh, man dama su sori xam moo tax. Mhm. nee naa opposition fa nekk. kii tàggatoo olova la xam. te benn sànnitage moo indi parce que foo leen fekk ni nga naan PM dafa ñëw assemblée. Ah ñëw ñëw bu moo ñëw non xaaral ñëw bu ñëw li ci prépa yëpp pour taxaw saaw ko. nga nga PM bu nangoon am courage nangu. mais de dem assemblée bii gis nga ñun jeunesse bu ko fal ñun askan bi jeunesse bi ñu ko fal ñun ñoo dem gunge ko ñun yëkkee gunge gis nga gis nga madame soxna si monsieur Coly nga baal ma foofu mais on a un gouvernement boo xam ne ñun peut-être sénégalais yu ci bari xamaguñ seen priorité par rapport ak déclaration politique générale boobu de c'est normal à ce que ñu def ko aussi gis nga fàtte dafiy xajul mhm. fàtte man suñu ma évité ba dem man Sénégal man suñu ma plateau bu ma évité ak nu mu mën demee damay dama dem xaju fi bi ñuy composé Ousmane Sonko ñu ànd ak ñu su nekkoon ñëpp fii la yàggul démb démb la fii fii pour tooxal ko yàggul gis gis nga dama ne dama ne deme ne dama ne waa benn ak ñu ñu àndal ak ak ak ñu ñu àndal fi fii leen fekk fàtte xaju fi gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga benn koy tooxal benn koy tooxal benn koy tooxal waaye dama la posé question ba ba nga koy tooxal dama ne ban ban ngay tooxal ban ngay tooxal. Mhm. def jë ndax ñoom ko si si Sweet Beauté. loolu naa si ñëw dama ne dama ne loolu loolu man dama ne loolu. loolu dama ne dama ne man loolu na loolu man dama ne man loolu naa si ñëw kilifa yi nekk xam nga li waaw taxal loolu débat mais mais mais mais attends attends mais mais mais dëgg may dëgg dëgg may dëgg bu ñu personnaliser débat par rapport ak ak ak Ousmane Sonko ak Macky xam nga assemblée nationale surtout la am na yoo xam si nga boo duggee ci débat mu wax ci loo xamante ni dina la yéem léegi léegi léegi léegi premier ministre la léegi léegi sa premier sa sa sa premier ministre la waaw sa premier ministre la mais thème mais cadre cadre bu ñu personnaliser débat kaddu yi ngay joxe fii kaddu yi ngay joxe waaw kaddu yi nga joxe non kaddu yi nga non mais yi nga fi wax sëñ bi omaaloo ko sëñ bi. mais kaddu yi nga fi wax yaa omaaloo ko. laa wax non omaaloo ko kaddu yi nga fi wax. kaddu yi nga wax omaaloo ko. parce que non attends non attends non non dama ne dama ne. dama affaire suite boote boobu yéen waa APR yéen waa waa APR dinaa wax loo xam ne du ma ne ormal ko sa sa njëb normal na dama ne ormal ko sa njëbal kàddu mooy gis nga nit dëkk wax ma lan mooy ñàkk orma premier ministre da ngay am respect su moom. mais lan mooy ñàkk laa la wax nii. lan orma xam nga sa kaddu yi ñu fa wax ormaaloo ko. ay jox ko ay kaddu. boo da ma bëgg nga rappelé ma man ma bëgg nga rappelé ma dama ma. ne lan laa wax loo xam ne du orma dama cette assemblée là loolu laa bëgg a rappeler moom man bi amuñu yëmbande amuñu amuñu amuñu yëmbande askanu Sénégal parce que bu nu député Benno bu nu amoon yëmbande askanu Sénégal bu fekkee askanu Sénégal moo leen taxaw toog fii tey ACC bi nga xam ne day coûter day coûter business business business Sénégal plus de 76 milliards nga xam ne amul benn njëriñ poste lekkaay xaalis la poste dooykaay la parce que Macky moo bëggoon neex la ay ndëm mu jël leen teg fa. mais dama ne cette poche là dama demande président Bassirou Diomaye fay Faye solennellement na ko supprimer na supprimer cette poche man loo demande président Bassirou Diomaye Diakhar fay assemblée dama sooy parce que cette assemblée là da nga koy tas mu neex naka da nga koy tas organiser ay élections yu transparent Sénégalais yi fal ñi nga xam ne ñoom mën jiral ak askan bi ay députés yu diin yu sérieux ñu liggéey Sénégal man fa laa fa laa assemblée mosutoo d' accord très bien monsieur Coly Lamine Senghor ñu pour revenir at par rapport ak parce que ñu ngi doon génn débat bi quand même di ko mm-hmm.